mais tey ngay dem xare euh, dëkk bi nga dëkk wala penc bi nga dëkk ngeen am ay coow seen biir am malentendu boo xamante ni dox na ci diggante euh, du ma ne Balla Gaye ak Guy gi mais dox na ci diggante ay xale yoo xamante ni duñu dëkk géejawaay ak Guy gi taxawaay boobu en tant que xale ban gis-gis nga ci am est-ce que loolu baax na. non loolu loolu baaxul si gox parce que ñu ñëpp ñoo bokk géejawaay njiit saakul boppam yàlla mooy sàkk njiit te Balla Gaye yàlla moo ko saax muy njiit si géej waaye yàlla moo ko ko koy nangul di ko ñaanal ko waam ñoom yàlla may ko si ndam mm. mais gis na booy wax noonu muy safara ak bu sita ñu may wax la ñuy wax rek ay kii kamantaan la kii dëkk fi kii lii laa yow kii dëkk fi te moo fi ñëw ngeen bëri na mbapat yéen ñëpp gis nga safara mm. safara guy gi may ko lu bari de ay morom la ñoom ñëpp safara xam naa ko bu baax xam na mu bu baax bu sita xam naa ko bu na mu bu baax mm. dañuy gisante chaque jour dañuy gisante stade chaque jour mën ak ñoom mais ñoom loolu waru leen seen diggante ñoom a guy yi parce que guy yi leen loolu. gisaa lu ma la parce que ku nekk nekk nga si guddi gi bul set guy gi ñoom fekk la si la si muy safara muy buusita mais ñoom du nekk seen ginnaaw ñoom guy gi du leen tontu parce que guy gi du seen morom ñun ñooy seen i morom ñun xamal nañ suñu biir ñun ñëpp gisaa lu ma la am na loo xam ne xajul suñu diggante ñun ak ñoom mais bu ñu ko bëggee ñaawal dañ koy ñaawal bu ñu ko bëggee rafetal dañ koy rafetal yow mere nga guy gi non téye nga ceene ko loolu yow concerné guy gi boo ko meree wàññi ko dara moom bu la meree wàññi la dara kon dundal sa ba yaa ko moom mu dund dundam. mais guy gi dégg naa pare que am na ci booy yu mu ci jotee joteel ba ñuy jot dem ci yoon mun nga ma leeralal lool. non guy gi booy ñaan ni booy ñaan bu notaire la joteel booy notaire te booyoom noonu ko ko guy gi loo xam ne xamu ko parce que ñu wax guy gi dara wóor ko ñun guy gi depuis kañ lañ commencé ëpp na 15 ñu ngi kër guy gi mu yooyu fanaan pour guy gi mee ko billet guy ko billet mu jóge fa mais ñun ñun dañuy nekk kër Gouye Gui ay 6 mois bu ñu bëreeg ñoom Ama ah, Baldé seen galaa bi un an lañ nekk këram bàyyi suñuy jabar bàyyi suñuy doom bàyyi suñuy waa kër di ko guddul di ko bëccëgal ñoom Gouye Gui woowu si kenn muy safara muy buusita Gouye Gui woowu si kenn pour yow nga ñëw pour di ko xeexal woowu kenn parce que Gouye Gui indépendance moo ko xeexal boppam te dafa ñafeel boppam lu mu am gis nga xam lu ma la gis na ñoom ki ñuy topp si ginnaaw noonu di dellu noonu di wax noonu mooy buuse buuse doomu Gouye Gui la man bëgguma sax di wax si moom parce que boo waxee si moom dañu naan da nga soxore wala dara bu lu mu lu mu mënta am si àdduna ginnaaw yonent bi guy gee tax parce que bu ko nit ñi xamee guy moo tax mais tey bu ko tey nit tey ñëpp xam ne yow buuse tey guy moo tax nga xam ko tey nga dem toog fenn di xalab guy gi di ko yàq loolu dafa ñaaw. mais est-ce dégg nga coow bi mu amee ba léegi buuse génn def benn sortie wax ci guy gi. non buuse di di wax si yooyu sañul loolu sax moom mu def loolu buuse di wax loolu. mais Bousse moo guy gi ma yaakaar coow loolu jeexoon na euh, ba ba ba bantamba bi nga xamante ni Modou Mbaye defoon na ko sur la 2STV euh, ñu waxti trouver terrain d'entente guy gi xamal ni surtout Bousse euh, nu mu tuddate Bousse doomam la moom rakkam la doomam la coow li jeex na léegi lan moo ci indiwaat loolu. waaw ah, mais xam nga loo gis am na lu ko waral. mooy Bousse ak guy gi ñoom ñoo bokk seen états mm-hmm. ñoom lu ñu seek seen bopp ñoom ñaan ñoo koy seek mm-hmm. Boucher àdduna du yàgg ba mu nekk papay guy gi moom doomu guy gi lay mës a nekk te man bëgguma tey ma toog fu ma toog naan man di ndamoo guy gi ba pare dem si ginnaaw di yàq der guy gi ma loolu ma ko defal kenn si àdduna isaan lu ma la wax Boucher tey mu ngi toog fu mu toog tagg guy gi tey mu ñëw mu dem ba yàlla may lu mu bëgg am si àddunaam mu dem di xarab loolu moom waru ko parce que guy gi nitam la bu dee benn fan sax guy gi dund na ko bànneex ak moom te bu dee benn fan la gi dund na ko ak moom ñu nekk ñoom ñaar si jàmm ak salaam kon tey war a dara warul jax diggante moo guy ba mu toog di yàq diggante guy gi ak euh, Balla Gaye muy jéem a xalab foofu non non parce que Balla Gaye guy gi ñoo bokk benn géejawaay te guy gi li Balla Gaye doon da ko nangul parce que guy gi soxorul amul xolu iñaan bu nekk si moom amu ko barke alxaanu karim kamoon taawul la ngaaka la mais dafa ñëw fii xoolal fondé famille def la tout ba jënd këram biir waaye am fa titre foncier gis nga booyooyu noonu ñoom dañ jëm a nekk ay mbër moo gën si ñoom jéem a bay seen waar muy safara buus muy fan la parce que na ma jékki-jékki rek gis euh, safara di wax gis bu sita di wax coow li fan la juddoo parce que lan moo waral coow loolu quoi. yàlla xam ne safara gis nañ maa moom keroog rek mu naan ma ay ñoo day toog di yàq sama dee nii ma guy amul jot di wax si yow man lu may wax ragalu ko ku si neex après ba pare nga woo ma sa téléphone am ngeen sama numéro ñoom am sama numéro ragalu ma li may wax. mais safara guy musu ko woo ne ko saf kaay xeexal ma fii wala kaay xulool ma fii wala kaay kontaagal ma fii nii pour lan ñoom guy moom la doole dañuy ànd moom te yàlla tax rek. saf maa moom nañ ba tàyyi di ànd ak guy di génn fu ne ñu sekk loo xam ne nii nit xamul kenn xamul man xam naa moom xam naa kon moo guy dara doxu seen diggante ñoom ñaar si lu ñaaw saf moo bëgg a ñaawal rek mais guy jàppalu ko dara te guy gi musul toog boo saf la lu ñaaw mais saf mooy wër fu mu dem toog di wax di jéem a kalaas di xalaas yooyu na bàyyi yooyu amul saas ñoom guy gi du seen morom ñun ñuy seen i morom. ci mbër yoo xamante ni euh, dégg nañ fi mbaytin euh, ñu ci bari wax nañ ba wax ci écurie ba ni du bi. nekkul seen leader écurie expliquer ay détails yu bëree bëri mu mel ni kon am na ci yoo xamante ni mu ngi xew ci entre guy gi ak ak ak ak mbër yi nga xamante ni ñoo dëkk géejawaay mm. surtout mbër yu ndaw yi. non xam nga njiit sàkkul euh, njiit sàkkul boppam yàllaay sàkk njiit mm. guy gi yàlla moo ko jiital ñoom nañ koy nangu ma ko balaa parce que lu mu ay détails la mm. mooy am naa combat àndal ak man te moom loolu du ma ko si balaa parce que moo guy gi xuloo wuñu dañu xëy dafa mer rek mais bis bis tay ñëw ñu jubóo ñoom ñaar tamit mbay mi nu wax tamit mm. sama bis laa am guy gi xeebal ma mm. ma sama bis kenn du ma xeebal waaye bis sama xeebal la concerné mm. ma la wax mbay mi jàmm lañ seeg fu ñu jëlee dañuy nuyonte béggante dem nga dem anyway mais guy gi amul see kenn xaar man safara ak buuse laa bëgg seen wax yi ñuy wax ñu arrêté ko parce que di wax di ndelli ndelli te du seen morom mais lii du indi diggante Balla Gaye ak guy gi mu am cool cool parce que euh, ci wax ji wax bu dem rek wax day ñëw kaaw guy gi ñooy wax kaaw mm. euh, euh, Balla Gaye ñooy wax mm. te ba tey ñoom ñaari leaders yi gisuñu kenn mu génn def benn sorti wax benn wax non foofu noonu dama siy balaamee Balla Gaye quoi parce que moom mooy champion bi yàlla ko dogal si moom moom mooy njiit bi mm. waru sax seetaan loolu booy di ñëw si gàllam di wax yenn détails yi nii si ay mbër parce que keroog boo xoolee vidéo bi bu sawar a dem ko yaay papa yu mbëri affaire yooyu noonu saa di muy taf làmmiñ mais Balla Gaye yooyu du si détail du si wax mais gis nga safara ñoom ñu wax ne amul sens xam ki ngay wax chaque jour moom li jëntiw la ba bis ñëw ba nga ba daje moom ne ko mbër yow laay waxal lii wala mbër yow laay waxal laa àdduna du wax ko moo tax amul sens ñoom dañuy wax ni ñuy wax lu leen neex mais kenn du si jàkkaarloo guy guy sa bët bi am na suuf ku ko si def doo doo ko defal si ilaa yow ni abadan ñu ñooy seen i morom bu ñu wax ni wax ñu ko ñun wax naa ko safara wax naa ko buusita ñun guy yi dégg la bu nekkee guerre ñun dañuy guerre ba ñuy dee ñun guy yi duñ daw si moom dara parce que ñun guy yi damay toog di ko wax chaque jour nit ñaa ma loolu waroo ko wax man guy moom gën a sama bakkan barke alxuraanu karim te ku nar a del si kawam damay del sa kaw billaahi wallaahi wa loolu yàlla moo ko nattee mooy ñaari doomu aadama yonoon muy guy gi di papa boo jinne ñooñu papa boo sama doom sama laa ko tuddee kooku dama ko bëgg yamele ma ko ak doomu aadama bu yàlla sax yamale ma ak doomu aadama bu yàlla sàkk barke alxuraanu karim te ku ko laal danga may laal ku ko laal dama dama lay laal barke alxuraanu karim daw ma si dara. mbokk yi dégg ngeen li mu wax nee na ku laal guy gi da nga koy laal parce que daw ci dara mais man damay lancer benn appel boo xamante ni euh, autorités yi dëkk géejawaay ñoom laay lancer appel bi dama bëgg xale yi nga xamante ni ñoo dëkk géejawaay kilifa yi géejawaay nañ jóg parce que wolof daf na liy raam ci ñag gi la jëm. te bu fa amee kër du fa génn te it mu doon loo xamante ni ñaaw na ci deru géejawaay ñaaw na ci mbëri yoo xamante ni ñoom ñëpp ñoo bokk benn couleur bi ñuy défendre am na nag loo xamante ni seetlu naa ko ci làmb muy doon doon loo xamante ni lu ñaaw la mu doon loo xamante ni rafetut muy camp yi nga xamante ni saa su ne dañuy nekk ci mbër yi euh, ñu wër Balla gay dem wax ci guy gi ñu wër guy gi dem wax ci Balla gay ñu wër booy Niang dem wax ci Ama Balde ñu war Ama Balde dem wax ci euh, Boy Niang da nga koy gis ci Parcelles Assainies ñu wër Modou Lo dem wax ci Garga Mbossé ñu wër Garga Mbossé dem wax ci Franc ñu war Franc dem wax ci Gora Sock mu doon loo xamante ni bokkul ci luy defar làmb yéen ñi nga xamante ni yéen dëkk Géejawaay dañ leen lancer appel euh, loolu pour yéen ñëpp ngeen gisee bala Gaye 2 kilifa nga responsable nga Géejawaay ku euh, titre roi des arènes yaay mbër bi ko fi musa dugal dugal géejawaay te loolu di denc taarix damaa bëgg nga woo guy gi woo xale yi recadrer leen waat ngeen toog waxtaan parce que lu ñaaw amul amul dëkkuwaay parce que man tey boo gisee may jël kii bëgg lu rafet rek bëgg loo xamante ne njariñu làmb la waaye teewut ñoom dinañ wax li nga xamante ne mooy seen soxla ba keroog ku keneen ku bëgg wax rek wasaare làmb yéen la fi nekkal mu doon loo xamante ne man dama koy ñaawlu saa su ne damay gis ñiy jege mbër yi rek ñooy indi détails yu mel noonu ba tax mbër ak mbër seen diggante dootul ñagas. non mooy loolu affaire séddaane la rek te yàlla moom bëggul sax ku yee fitna parce que ñoom lu ñu capable di ko wax ñun capable nañ lu di ko def ñun ñun ñëpp xamoon nañ suñu biir te li nga wax ni léegi dama ni fi nekk nañu woo gars yi seen ñu ko quoi ñu séq jàmm ak kilifa la guy kilifa yi nga xamante ni yéen a ci ginnaaw tamit mhm. jéem leen a rafetal la loolu la loolu nag mooy ko rafetal rek la ñuy wër man Balla Gaye jàmm laa ko yéene mhm. parce que man moom mooy sama mbër guy gi sama mbër guy sama papa mhm. man benn mbër laa muy moom yow yàlla moo ko dogal quoi des fois dañuy réeroo mais sama gaayan la te jàmm lañ seek man moom te jàmm laa ko yéenee barke alxaanu karim mais booy wax ni ñoom ñoo war a bàyyi seen wax ji parce que lii day jaxase te loolu waruñu àdduna yàgg ba Balla Gaye 2 ak guy yu bëre loolu mënul nekk si àdduna àdduna yàgg ba Elton ak guy yu bëre kon kon lu rafet rek mu xaj seen diggante ñoom ñëpp mais am na affaire seydaane la te yooyu jullit moomu ko te yooyu góor moomu ko billaahi wallaahi wa taalaahi am na loo xam ne dafa ñaaw sax dafa ñaaw si gis bi tey bi gin laa dem ma day benn gaan xudóos mu ne non gars yi li ñu def ko bàyyi parce que lii naaysul guy mi nekk si combat gars yi ko war a encouragé nit boo ko jàppalewul non toogal sa nga téye sa si moom bul wax si moom dara yaa moom sa bopp nga doo si moom dara toogal téye sa bu amee ko seddaan na loolu muy si boo noonu te musul dem signature nañ xeex wax ko kenn saa ñëw signature naan gaañ bu doon xeex bu doon xuloo dañ mu pare ñu génn dem si ñoon si jàmm ak salaam billaahi wallaahi wa taala mais kon bu amee day am bu xasee am rek loolu day ñaaw te loolu moo li nga wax léeg-léeg kilifa yi ni loolu lañ xamee nganjeema toog waxtaan gars seen biir ñu xool lu ñu jibooyee nekk salaam moo gën parce que àdduna solo te lu rafet rek moo rafet ana Père Balla Gaye jógee fi barki démb di ko ñaan yàlla xaaree ko àjjana zébalasion anam te mbër la woon te gaañu na ñu ko ñaan yàlla na ko yàlla yëm ko àjjana ak keneen ak lu rafet rek moo am solo nañ sekk jàmm sekk salaam alaaji mbay bu yaan ak Ama Baldé maanaam ko ñoo bokk kon ndeysaan ay adversaire la adversaire la lañ moo guy dañuy ma guy Ama Baldé dañuy bëre mhm. Ama Baldé fu ñu demaan dañuy waxtaan bala gante ma ak moom mhm. te lu lu naasa lañu seeg man ak moom alaaj ma dañuy déggante chaque jour téléphone ma ak moom jàmm lañu seeg man ak billaahi wallaahi wa taalaahi Elton mook Balla ñooy ànd mhm. te sama xarit la sa guddi ñooy fréquenté ma ak moom sa guddi ñooy ànd kon lu rafet la moo rafet àdduna amul solo dañu rafetal waa ñun ñu woote nekk si jàmm ak salaam billaahi wallaahi guy amul benn xol bu bon bu muy yéene amul te lépp lu ñu yéene si Nicolas lu bon yàlla na si jiitu. parce que guy gi dafa mel ni am na wax bu ko marqué. Euh, xale yi na guy gi dafa bon. dafa soxor yéenewul kenn dem. yéenewul kenn am jàmm loolu dafa mel ni bokk na ci wax bi nga xamante ni gën na ko tuusee ci xolam. waaw mais xam nga loolu wax nit la mais guy ku ko jege xamul ne guy gi nit ko baax la. guy gi bon sax jegewu ko barke alxaanu karim ñun féete na fu ñu fu ne la ñu féete parce que olof Ndiaye ne bu ñu nee diw na fekk mbokk yaa ko wax te guy gi yaayam da gërëm baayam gërëm ko ay famem gërëm ko barki alxaanu ko bu ko neexoon mu ne sama gaale maa xam moom suñu kër këram kenn dëkku fa mais daa am kilifa parce que nas mooy kilifaam ak may war a saar guy bi du dem fenn heure boo ñëwee këram nga koy fekk te bu ko neexee mu ne Dakar nekk sama jabar nekk fi muy Canaba may def lu ma neex di taxawal fu ma neex mais doo ko dégg si dara ñàkk fayda heure boo ko fekkee gaaleem nga koy fekk te loolu dafa doy ndam barki alxaanu karim yéenul kenn lu bon billaahi wallaahi wa taala te xam naa loolu moo nekk si xolu Balla Gaye mais gars yi seetaane lañ dañuy jaxase nit ak nit dañuy rafetal quoi ñu xool lu mu gën naa seen dund ko man su xam laa gëm man su ma la bëggul yow du ma ànd ak yow su ma la bëggul du ma ànd ak yow mais bëgg la moo tax may ànd ak yow su ma nee mënuñu ànd maa damay téye sama bopp toog sama ruq bàyyi la nga dund li nga bëgg a dund man ak yow ma. Balla lan nga koy wax Balla Gaye. non Balla ñaanal jàmm laa koy ñaanal. Hmm. ci coow li lan ko ciy wax. non laa ko si mooy Balla Gaye mooy li ma koy wax mooy njit sàkkul boppam yàlla mooy sàkk njit te yow yàlla moo la jiital doomu aadama mënu ko dindi parce que wërsëg yamul li la yàlla may may ko kenn loolu yàlla moo k dogal si yow ni la ko nangul man damay toog wax naan kullu mbër buy bëri Balla Gaye 2 moo dàq bëri parce que loolu yàlla moo ko def kon moom na woo gars yi seen biir moom kilifa la na woo guy guy kilifa la ñu toog waxtaan seen biir ñoom ñaar ku nekk nangu sa moroom ñu toog nekk si jàmm ak salaam safara ak buusita bu ñu mënoon ànd ak guy gi ñu téye seen bopp anyway ku nekk dund li nga bëgg a dund loolu mooy li ma jaaxal mooy début bi Balla gay ak guy gi euh, ay doomu nday lañ guy gi da nga daan wax mu ne la euh, géejawaay

man du ma ñëw si yow di la tagg te soo wane ginnaaw ma xalaatu te moom na xaar wàllam Balla Gaye 2 ñii ñëw di moom di ko tagg noonu bu suwaa ñooy toog wax si moom lu ñaaw barki alxuraanu karim parce que ku di dem di la bu suwaa moom moo lay yóbbul kon àdduna amul solo dañu rafetal rek moo gën a naas di ko ñaanal jàmm billaahi wallaahi wa taala rek laa ko ñaanal maa lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax xam naa ne lekk naa sa temps mais maa lay jaajëfal baax a baax waaw maa lay gërëm man di sant bu wér a wér di la ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal site internet bi yàlla na gën a yokk ba dem nekk ay télé di gërëm ñëpp di gërëm waa géej waa jën woo si combat guy gi bii nii na si ñëpp jàpp na si ñëpp jàpp parce guy gi combat na si torop ñu ñaan nag yàlla may ko si ndam lu sedd guy Balla Gaye de di ko ñaan combat mu jëm yàlla may ko si ndam lu sedd guy képp kuy mbëru Guèye waaye maa lay ñaan yàlla may la ndam surtout nag sama doom ndey Papa Boy Djiné maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla may ndam di ko ñaan yàlla na yéen bi oyof si kawam parce que daanaan laam daanaan laam boobu dañ koy ñaan lu wet parce que boobu yaru lay bëreel boobu yaru dañuy dañuy per Balla Gaye bi dañuy per maa ngi gis armée mi billaahi wallaahi mu mel ni moom Balla Gaye moo ko jur loolu dafa daw sama yaram barki alxaanu karim di ko ñaanal gudd fan ak la ñuy ñaan yàlla te yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def di ñaanal weer loolu rek laa ko ñaan moom di ko nuyu bu baax baax Elton di nuyu guy bu baax di ko ñaan gudd fan ak yor yàlla may ko kattan di nuyu nas di nuyu nag sama benn grand zano série biso maa koy nuyu borom Sacré Cœur di ko ñaan gudd fan ak ma jaaxlee moom moo siy génnee barki alxuraan ma loolu. grand dafa di nuyu waa biroom yëpp ñoom Koli Samba Tall Bamba ñoom ñëpp maa lay nuyu. di la nuyu yow tamit di ñaanal gudd fan ak yor di nuyu suñu monsieur Ba maire Gunaas kooku def na la tout tabax. Gunaas ba def fa léegi école léegi Gunaas amatul sa agression barki alxuraanu karim Gunaas amatul agression léegi parce que koñ yoo jaar def na fa làmp mention spéciale à Baydi Ba di ko ñaanal gudd fan ak wér parce que ñun booy sax dañuy envoyé vocal di waxtaan ak moom barki alxuraanu karim di ko ñaanal yéen bi si kawam di ñaanal monsieur maire Alioune Sall di ko ñaanal lépp lu mu jublu yàlla ko si yàlla jàppale parce que ñu ngi gis na mu ngi liggéey géejawaay a ti ko ñaanal gudd fan ak wér di nuy Alimane benn gannaaw guy la gannaaw bu baax bëgguñu di nuyu Mor Guèye nag doom day guy yi boroom dollar yi Mor maa koy nuyu bu baax di sama doom day Alaaji Mbay waaw sama benn xarit Fallou Kolobane jigéenu Faza maa koy nuyu bu baax di nuyu sama doom day Ale Ale Thiam waaw moom sama xarit la sama doom day borom Kër Massar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 yaa fi ne